mais xam Touba moo si gën a kii ndax xam nga euh, Modou Modou ba fi ñoon di suñu mbokk vraiment andi woon ku bëgg moo sax wax Modou Modou damay war a wax <laughs> Sénégal mm-hmm. vraiment mu wàlloon si njabootam ak yu mel ak ñi mu contacté woon loolu moo tax Touba xaw xaw a kii ni kii bi yéeg parce que xam nga fii suñu dëkk yi kër yi nu mu bindoo wutee na ak euh, yeneen kër yi parce que ñu ko fi dugaloon tubaab lañu mais xam nga tubaab moom bu ñëwee moom kese la. ak benn doomam fële wala sax moo ak jabaram kese. moo tax wàlleen tam du du gaaw mais ñun moom bu kenn jëlee jàngoro dugg si kër. Hmm. yow xam nga ñun suñu kër yi nu mu nu mu nu mu mel. waaw ah, waaw da ngay dugg si kër daa fekk fanweeri doomu aadama. Ah. waaw moo tax foofu boo fa duggee rek te ngay jógee Italie ñëw mais ku nekk day ñëw saa fante yow. Hmm. mais yow mi tamit ñëw sa mbébét wax dëgg yàlla du ñëw pour wàll say hmm. sa jabar ak ba si say doom xam nga ni loolu kenn yéene loolu quand même charité nga leen di andil waaye pas charité Covid 19 loolu xëy na kii bu ñëw la mais tamit dañ si war a gën a nag foofu la ñu war a gën a wax na gis nga foofu noonu nga bëgg pour ñuy ñëw parce que signalé nañu ay ay ay ay ay ñu jóge Italie di dugg ci Sénégal te du ñu jaar si yoon bi parce que te nañu frontière mais ñu ngi dugg si voie terrestre loolu ceeb bi dugg si kër yi. ñun ñu ñuy jox ay turam képp ku fi dugg gars yi am na suuf ku boole ne la diw jóge ni Italie mi ngi fii ci dëkk bi parce que euh, loolu la Sénégal manqué woon maanaam di dénoncer parce que ñun suñu culture dañu waxoon dañu ngi sutura dëkkaale jàmm si sa dëkkaale da nga koy suturaale waaye lii dafa dem ba nga xam ne bi bul suturaal lu mel noonu parce que jàngoro dañ koy weer moo tax képp ki nga xam ne bi ñëw na balaa ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay dénoncer yow miy ñëw demal donc si docteur nga ñëw nga leen man de dama demoon Italie dellu si naa dama bëggoon ñu xool ma ñu xool nan laay soree sama njaboot diir ngeen consulter ma ba nga xamante ni bi ba ba ngeen jox ma ndigal ni ma man dara ma pour ma mën a dugganteeg sama njaboot c'est-à-dire que yow yaa war a am boobu xalaat pour aar sa bopp mais aar sa njaboot waaye boo ñëwee làqatu say waa kër say soxna yi daal di leen nëpp nga duggal la fere ne la bu ko kenn yëg parce que dañuy képp ku jóge Italie léegi gars yi ñu ngi lay joxoñ mm-hmm. mais loolu mooy problème bi nag te loolu il faut que ñu communiquer si yéen ñu si communiquer ak kilifa yi pour que ku jóge Italie même boo jaaree voie terrestre nga ñëw tamit mais ñëwal si gaa yi bu laqatu laqatu bi moo ñuy andil lii nga xam ne bi maa di Italie parce que boo laqatoo ba nga wàll sa njaboot day mujj boobooy gën a bon non seulement da fee waaye tamit askan bi dëkk bi yëpp daañu yëg ni yow da nga nëbbuta ba wàll sa njaboot loolu moo gën a ñaaw moo tax képp ku ñëw demal nga gis si kër docteur ñoo ngi fii ñu xool la ñu mettre la en en quarantaine tuuti ba xool xoolaat la contrôler ba xam ne yow léegi am moo dara ñu soog la nag ñu ne léegi mën nga mën nga mën nga jaxasoo sa njaboot loolu may la tawfeex may sa njaboot tawfeex may réew mi tawfeex